li ci gën a fës tàngoor wu metti ci réew mi fii ba talaata waa météo ñoo ko température yi a dem ba 45 degré ci yenn gox yi ci bët gànnaar ak penku mi mu a jural ñenn ñi jafe-jafe ci seen wàllum wér-gu-yaram di di rujol maanaam ngas jébbiwaat bu baax ci Sénégal lépp ñetti téeméeri xale dal na leen ñi ñi li ñu nag ñàkk a ñàkk xale yi temps yi ndax gréwu ànd gësam bi bokk ci li waral directeur Walfadjri eh, ñu koy déglu ci suba ba léegi ca sûreté sécurité urbaine mu ñeel nag mbirum Pape Ndiaye kon moo ñu woolu kii di Moustapha Diop mu fekk jamono jooju beneen taskatu xibaar bi di Babacar Touré moom defeere nañ ko avocat wu Sitor Ndour yi fas yéene porté plainte waa AGS di mbootaay jigéenu juriste Sénégal yi gannaaw kàddu yi ñu yëkkati ci lu gannaaw di directeur général bu code bi woon am na ni plainte yu ñeel ni nit mbootaay central syndical yi ëpp doole ci réew mi taxaw ci tànku xeex nee nañu daañu dugal préavis de grève di kayit pour dem grève su leen njaatige yi faalewul ci lu lu jëm ci yàqu payoor ci privé bi ni sàkku daañu teg xibaaru bitim réew xibaaru tàggat yaram li ci euh, yéene kaay laata ñuy jeexale gis-gis ñuy waxtaan tey wàllu tàngooru métti wi ak tamit changement climatique ci toppite yi am ci jaw ji mu nekk li gën a fës ci xibaar yi ne suñu ni jaay faram fàcc El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 moom nag euh, Pape Ndiaye di chroniqueur te Walfadjri nekk kaso boobaak léegi ëpp na weer gannaaw bi ñu koy toppee euh, siiwal xibaar yu dëgguwul naka tam xotti war ma magistrat euh, keneen di beneen taskatu xibaar di Babacar ture moom nag jëlee nañ ko foofu ca sûreté urbaine ba daal di ko yóbbu sànq ca tribunal ma nga ca kaaf ba nag di jàkk jàkkaarloo ko procureur moom Babacar Touré jiiti set bi di Kewoulo liñ koy toppee nag di nag ñetti mbir juróom-ñaar sax waaye ñeent yi mujj nañ ko teg ci suuf ñetti lañ gàddu ci ndodam muy diffamation yàq der diffusion de fausse nouvelle si wal xibaar yi dëggwul nag noonu tam euh, dénonciation calomnieuse di tamit euh, yàq deru nit wàllum yoon ñi des ba léegi ak euh, kàddu yi nga xam te ne waa AGS di mbootaay gi ëmb jur si jigéen yi Sénégal yëkkati nañ ko démb di nag dingat li yoon setal si Toox ci mbirum viol gi ñu ko doon toppee yoon nag daal di koy setal ndax nee nañ nag mbir mi leerul avocat yi nga xam te ne nag noonu la Sitor Ndour ne nag daañu porter plainte njiit yi waa AGS yi ndaxte dañoo yàq der leneen tamit yeneen ni daal ñu ko gàllu ci ndoddu eh, Gabrielle Kane Dame Mbodj ci kàddu yi ñu yëkkati si mbir moom moo waral ñi leen di plainte waaye laata loolu nag li leen gën a jàmp gën soxal jamono ji ñoom avocat si Ndour yi nee ñu nag laata semaine bi di jeex daañu porter plainte xale bu jigéen bi nga xam ne moo ko doon tuumal viol naka noonu tam yaayu xale bu jigéen bi ndaxte dañoo yàq deram moom Sitor Ndour une heure tegal ñeenti minutes. pour man RFM mooy rajo woy ci xibaar yi wax ci tàngoor bu métti yi waa waa météo xam ne ne dina am ci réew mi loolu nag euh, lu ko dale euh, bërki démb ci talaata ji mu nar a woy nag ba talaata bii di ñëw kon diruk semaine lay doon neneen sax température dina dem ba quarante cinq degré li euh, gox yi mu gën a soxal di bët gànnaar réew mi waaye tamit penku réew mi tax sax ba ñi nga xamante ne ñooy waa météo di ñaan nag ñi di nit ñi rawatina mag ñi ñu moytu bu baax a baax ak tamit ñi amee feebar yu mel nii tension ak yeneen ci alerte rouge ci dëkk yi féete ci Ganarou gànnaaru Pink Sénégal De ay zone yu ñu zone à risque L'olé, le bulletin climat santé bu ANACIM daal di ci cartographème daal di danger 45 degrés, le nuit séntu ci bërëb responsable service euh, prévision météorologique ak réduction des risques bu et ne température yu djegi dayo la température yooyu dana dalé ci ñeent fukki degré jëm ba ñeent fukki degré juróom ci biir semaine bi ñu ne jëm nag ba talaata ñaar ci ñaar ñaari fan ci weeru mai température yooyu nag ñu ngi koy séntu ca Podor maatam Kanel Ranérou Linguère jëm ba Bakel. ay vague de chaleur yoo xamante ne nag mën naa jur ay jafe-jafe ngir nit ñu bëri rawatina ñuy dundak ak jàngoro. yooyee température nag mën naa indi jeexandal ci wàllu wér-gu-yaram rawatina ñi nga xam ne ñoo amee hypertension ñi nga xam ne ñoo amee maladie cardiovasculaire waaye tamit ñu wérul loole tax na ba direction générale de la santé publique mi digtal mbooleem euh, population yi nekk foofe rawatina ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee personnes vulnérables yi ñu bàyyi xel xibaar yu ñu mel. ba noonee sax ANACIM di digle ni taxawaay yii le ñu war a am. di moytu tamit di génn ci jant bi lu yàgg. waaye tamit di aéré kër yi ak néeg yi. képp koo xam ne nag am na ci. Euh, jafe-jafe wér-gu-yaram wala moom malaise ñi ngi koy ñi ngi ñaan mu teel a dem ñu yóbbu ko ci kër docteur yi ndax ñu mën koo jël en charge waaye nag bi ci ëpp solo te ñu war ko bañ a fàtte mooy di naan ndox saa su ne si Sylla des ba léegi ci wàllum wér gu ak euh, jàngoro ji di rougeole di ngas euh, di nga xamante ni jébbiwaat na fan yi li toll ci ñetti téeméer ak fukk daal dinañ koy euh, am ci weeru janvier ak léegi ci biir réew mi loolu nag ci ñaar fukk ak juróom-ñetti district ñu bëri njot ne nag li ko waral mooy li waa ànd gësëm di dëddu ñàkk yi bañ cee dugal seen loxo ñoom waa ànd gësëm ne nag artu woon nañ bu yàgg kilifa yi ñoo leen faalewul waa ministère de la santé waral euh, mbir yi euh, leeral yeeg Koumba Sandiane Faye ñetti téeméer yu tegal fukkub euh, kaawub ngas la ñu confirmé ci lu tolloog ñaar fukk ak juróom-ñetti district juróom-ñeenti district yi nag la ñu mën a duut baaraam ne fii épidémie ngas am na fii ba ñu amee lu mu néew néew ñett cas alliance ànd gësa moom bugut woon du muyub programme ñeel vaccination ci grève bi ñetti weer mbaalu jëcaam loolu mën na nekk parce que ni xale yi bu fekkee ni vacciné wuñ leen ak parce que vaccination mooy aar euh, xale yi ci feebar yooyu yëpp loolu moom ñun xam nañ ko parce que PV bu melee ni mu mel c'est que substance depuis les années 90 gis mi ngi ci bay waaram te képp ku ñàkk ñu ñoo la ñàkk amul keneen wante mbir mi du caageenu parce que vaccination bi defuñu ko pendant trois mois mën na tax feebar yi am wante war na mun a nekk moo tax bu ñu toogee ñetti weer bañ a ñàkk te ministère de la santé def si benn jéego bu am solo comme yeneen ministère yi ñu ngi lijjanti seeni i mbir ci la ñu toog ñu ne aussi vaccination ñàkk pexe moo taxoon ñu laal ko mais léegi nañu teg lépp ci suuf. bëriwaayu pakaaw ngas yooyee ak yeneen yu dikkaat laalek ñàkk mi duut ne rek ànd gësëm

confinement bi ak euh, li nga xam ne liggéeykat yi ñoo lañ doon jànkantool ba nga xam ne defatuñu woon dara lu covid ak li ñu waxoon nit ñi nañ toog seen kër ak nit ñi li ñu di dem di siberu bërëbu fajukaay yi parce que même dañ ko fa amul lo xam ne lu urgent la bu fa dem rumeur yi maanaam wax yi nga yu bon yi ñu doon wax ci vaccin yi ak ci ci ci vaccination yi ne système de santé bi ak euh, vaccination bi yek euh, ne lo am na jeexital ci ñoom donc loolu lim indi mooy ne lim bi nga lañ daan ñàkk ci xale yi day doon wàññeeku te loolu nag dafa du ko ne di wàññeeku ba joon yàlla yi ñu ñu boole kook nag feebar bi aussi waaw ah, rax ci pengas nag grève bi grève bi dafa peut-être ko rek. rougeole di musul jeex Sénégal te réew mi te eggut ci phase d'élimination ni réew yu bëri ci àdduna bi feebar boobee doon na lu ñuy surveiller ayu bés bu ne fépp ci Sénégal noné xamle service ministère de la santé lu mu ci mën doon alliance ànd gësëm dëkk ci di artu te joxoñ baaraamu tuuma nguur gi mi mu jàpp ne lañ fi teg mu def lu waax ngir moytandiku njeexintal yi nu mel. Kumba Sanjaan Faye eh, dañuy dem ba Casamance wax ci di dindi junni ñu fa euh, suul nee na nag lu toll ci ñaari million euh, ci euh, mètre carré lañ fa war a dindi ndax foofu yëpp miñ dafa bëri ci gox yu bëri nag nee nañ sax liggéey bi jamono ji dafa tagg tembe ndax li nga xam te ñoo ci daal leen daal leen jàppale ci dugal alal ñoom ñoo banque seen loxo ab ndaje ci waxtaanee wàllu min yi di nan ngeen koy dindee ak tamit daal di jàppale askan wi amal nañ ko demb ca Cap Skirring ci teewaayu Lamine Ba su lindeel lii boo ko seetloo daanaka ca Casamance ay at ngi ne amaluñu ko li ko waral nag mooy li nga xam ne laaj na ko mu jëm ci wàllu koppar Casamance jamono ji amu ko ndaxte partenaire technique yi doon jàppale nguur gi daanaka ñëpp a ñibbi Ansou Sané moom mooy directeur général bu ANDRAC koom-koom bi nga xam moom la ñu war a dugal ci mbir mi donc pour tollale ko tey

amoon na bàyyindiku ba nga xamante ne taxoon na déminage bi xaw a yéex loolu la ñu bëgg a corriger groupe des bailleurs de fonds pour le déminage en Casamance ñi ko coordonné nag mooy ONG Apprend nee na ñu jàpp nañ ne mbir mi dina antu ndaxte jamono ji soxla wi jàmp na bu baax a baax Demba Keita six de francs CFA parce que lu des mooy un million sept cent mille mètres euh, parce que euh, foofu la liggéey bi euh, gën a am doole déminage bi bu pare normalement ANRAC moo nar a accélérer euh, processus de reconstruction bi mooy tabax Casamance loolu mooy seen mission boo ne tabax Casamance da ngay commencer si nit ñi ñoom ñu mën a am jàmm seen ñi buggante ñu jàppalante loolu mooy euh, première première. sullindal yi nag nekk na processus bi nga xam ne yombul ndaxte li ci intervenir a bëri. waaye nag jamono ji yaakaar judd na ne nañ ko door ci Casamance ndaxte askan wee koy laaj ngir ñu mën a ñibbi ki seen gox yi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba dem ci beneen gox di Fayil nekk ca diwaanu Fatick foofu nag béykatu ceeb yi ñoo jaxle li ko waral moo di ne xorom si eh, moo nangu suuf si daanaka suuf si dafa nag xorom si dafa bëri lool te loolu nag mën na leen jural ay jafe-jafe ci mbay mi tax sax ba programme développement des chaînes de valeur yi daal di xool daal fexe ba daal leen di defaral ay euh, dikk yoo xam ne dina te xorom si su ko defee nu mën a bàyyi daal di góob ci ni mu gën a baaxee leeral yeeg am nett gu yi mbéyum ceeb moom def ma ñor ndax mbéyum ceeb dama xam waloor bi buy wax ci mbéyum ceeb sax day kontaan moom Njaay ngoom war na am nag lu ëpp juróom benn fukki waaye ba léegi ku sawar la mbéyum ceeb lay def ci village yu Fayil foofu nag wax ji mooy fi mu ne suuf si daanaka xorom si daf ko yàq yaxeet mais xam nga boo gisee ñu ci at yi dangay béy xorom bi jël ko doo am dara bi nga xam ni moom la Njaay bokk njoktoor lu tudd juróomi téeméeri jigéen ñuy bay ceeb ci lañu bokk am na itam ay góor waaye bëriwuñu waaye nag ca Fayil suuf si nga xam ni moom la nit mën a bàyyee fi mu ne dafa wàññeeku bu baax a baax ndax xorom si daanaka jël na lu bëri Ngor Sar moom mooy président GIE Ndioktor nga xam ni lu ëpp fukki village ñoo ko séq ren on a fait 500 hectares hectare bu nekk def na 3 tonnes à l'hectare le papil def na 3 digues antisel foofu yooyu moo tax ñu mën a am li ñu am Fayil nag village la bu mag bu nekkee ci commune bu Diouroup am na fa nag ab faro bu ñuy woowee Lukukuk am na lu tolloog 7000 hectares waaye lu tuuti rek la fa nit ñi mën a jëfandikoo ndax xorom si Wali Diouf moom mooy coordonnateur national bu programme de développement des chaînes de valeur yi di Proder. lu weesu juróom ñaari junniy hectare la mais ñaari téeméer ak juróom fukk kese hectare lañ fay béy li des yëpp xorom bi nangu na ko loolu nag buñ ko seetaane dana dem ba kenn dootu fa béy ceeb te population yi wax nañ ko bu njëkk vale bi yëpp lañ doon béy. nee ñu nag fi mu ne fas yéene nañ faa def ay liggéey yu am solo tabax fa ay jumtuwaay yoo xam ni day fexe ba xorom si lu ginnaaw. xam nañ fii ndox mi di jaar ndax ndoxu géej bi mooy ñëw di indi xorom bi ci biir suuf si donc bloqué ndox moomu bu dootul ñëw ci suuf si digg antisel fexe ba récupérer récupérer waat suuf soosu ci lu mu gën a gaawee loolu nag lañ doon amal ci Fatick ngir waxtaanee li ñu war a def ci faro boobu ñuy woowee Lukukook ay techniciens yoo xam ne nag Israël la ñu jógee ñoom wax nañ ni daañu taxaw jàppale producteurs yi ba ñu xam ni ñu war a tànnee xeeti jiwu ceeb yi nga xam ne ñoom la suufu région bu Fatick gën a nangu Aminata Goudiaby Fatick RFM Aminata Goudiaby une heure tegal fukki mu minute teg ñett ca Xinin ba ak Galaan nekk ca diwaan Pout ak wéy ci xibaar yi wax ci leneen soxal liggéeykat yi ak mbootaay euh, gi ëmb euh, kuréel liggéeykat yi ëpp doole ci réew mi di coalition des centrales syndicales ñoom nag euh, dàq ñu daal di dugal kayitu yëkkalu ngi dem ci grève loolu nag bu ñu weesoo premier mai di fête du travail bu fekkee ne nag fii ba boobu nag seen i njaatige daal di nu leen faale ci lu jëm nag ci li ñuy sàkku ñu yokk seen payoor ci secteur privé bi nee na nag juboo amagu ci waaye nag ñu ngi xaar bu fekkee ne nag nag amuñu ko rek kon dañuy tàmbali di yëngu-yëngal dugal kayitu grève démb nag la coalition des centrales syndicales doon amal ndaje ngi daal di xayma li tukkee ci waxtaan yi seqoon nag ñi nga xam te ne ñooy patronat bi di njaatige këru liggéeykaay yi dañ ciy déglu euh, njiitu euh, comité technique bu coalition des centrales syndicales Pape Birima Pape Birama ni moom la jàppoon waxtaan ci arrêté woon ko ñun de commun accord ñu ne lii ñun duñ ko passé duñ ko weesu bu ñu mënee am augmentation

000, SMIC, d'accord, nous avons 64 270, nous 57 800, nous 64 000. Le ministère a envoyé nous, nous avons eu réunion, nous avons procès verbal. Vous constatez des accords, mais nous avons convoqué pour nous signer. Si nous avons signé, nous avons nous avons déposé déposer préavis de grève. C'est la procédure. Il faut que nous nous signions, nous avons le procès verbal. C'est fini. Donc, nous constatons la conclusion, nous avons des désaccord, nous avons parti d'accord, nous avons Légui li préavis de grève bu ñu signé rek déposé pare nañu nag suñuy note yëpp li ñu préparer pour def ko au delà bo fekkee ni amuñu satisfaction yenen manam mobilisation yenen action bi ay bouillonnement yu ñu wara def donc à travers le pays waa ci ànd tamit ak sunu camarade yu collectivité territoriale ak ñeneen ñi nga xam ne aujourd'hui dañuy yaatal géew bi rek bon bërëb bi benn la mu nekkoon euh, Pape euh, Birame Diallo euh, jiite comité technique bu kuréel gii di coalition des centrales de desek syndicat yi ak syndicat bi ëmb ñuy liggéey ci wàllum batiment di PTP ñoom nag li ñuy sàkku mooy nag ñu fay leen ay koppar yoo xam ne bor la bu leen ameel leneen nag toll na ci ëpp ñaari téeméeri milliards nguur gi yoreel leen ko tax sax ba yenn kër yu mel ni CDE SCE e ak Eiffage nekk ci ay jafe-jafe ndax bor boobu nga xam ne nguur gi daf leen ko yoreel te fayeegu leen ko liggéeykat yi nag di ci nguur gi mu daal di fexe daal euh, ba tamit euh, bu ñuy joxe liggéey ñu daal ci jiital ñi nekk fii di doomu réew mi sànq lañ ci doon janok taskatu xibaar yi ñoom waa syndicat national du travail de la construction du BTP dañ ciy déglu seen njiit euh, Jaraaf Alassane Ndaw ci micro Salimata tey entreprise yi gën a mag si réew mi boo jëlee muy CDE muy Eiffage Sénégal muy CSE muy yeneen entreprise yëpp sociétaire ak PMI PMI yi nga xam ne ñooy liggéey ak entreprise yooyu ñëpp tey ci jaaxle lañ nekk li ñuy wax trésorerie entreprise yooyu dafa problématique problématique bi lu ko waral mooy état du Sénégal moo leen yoral xaalis bu am solo boo xam ne nii tey bu ko fayulee ñun fi ñu jëm xamuñu ko loolu nag moo waral tey ñun ñi nga xam ne ñun la yàlla jiital ñu jiite syndicat yi nga xam ne ñooy liggéey ci béréb yooyu ñu ne dinañ jóg jël suñu responsabilité wax ak président wax ak

parce que tay boy bo entreprise yi commandé ciment fournisseur yi bañ gasoil fournisseur yi bañ ñi ñu liggéeyloo mënuñ leena fay mu nekk chaîne bo xamné ni kenn xamul fu mu yam loolu mo waral tay ñu ne nañ woté alerte wax président de la république comme nim koy faral di waxé ñaare fu mu dem buñ waxé mu ne je vais demander au ministre des finances de mobiliser les fonds président dimbale ñu jappalé ñu téyel ñu suñu entreprise yi mobiliser les fonds dans les délais les plus brefs. nekkoon jarafala sa ndaw jiite syndicat bi ëmb ñu nekk ci wàllum BTP di wàllum bâtiment eh, ñu wax ci Barthélemy Diaz maire bu Dakar moom mbëbëtam mooy eh, fexe jële fi saret yi daw eh, biir Ndakaaru nee na nag bu leen fi jëlee saret yooyu ay tricycle lañ ne lañ ne di remplacer ñu daw ci biir Ndakaaru mu xam ne ko démb nag gannaaw bi doon lancé observatoire citoyen de la ville de Dakar ñii di borom saret yi nag ñu jox leen kàddu ci mbir moom nee nañu nag li ñu war a def daal mooy fexe ba xam Euh, ñi ndax ñoom dañuy daan seen doole ñu bàyyi leen ñu liggéey waaye nag fexe ba ñu ngi ci bokkul ñu daal di leen ci simpi reportage Oumou Kalsoum li Grand Dakar ci ab terrain bu amul dara ay saret ña nga gaare Amidou Sylla def na ñaari course ci fajar ji mu war a nag dallu profito wàll ci ndékki mi ngi wax ni ànd na ci li ñu wax ni charrette war ñoo daw ci capital bi mu jàpp ni faw ñu liggéey ngir mën a dund non loolu mën nañuy gaañ ndax na nit moom fa mu ne tam fa suturloo boo ko fa jëlee xam loolu gaañ lay doon mais wax dëgg yàlla moom li mu wax noonu raisonnable na ndax capital moom bu dee ba ni ñu defee gis saa itam ah, bu ko neexee raisonnable na waaye ñu daal li ñu gënoon daal moo ne ñu wutal leen luñ mën a jàpp bu ñu fi jëlee loolu dara waa ji di Babacar Dabo ngi wàccee lu tolloog juróom fukki Typ Yuan? mu ñu xamal ni fanweer ak juróom benn at ngi ni moo ngi ci métier bi mu jàpp ni nguur gi daf leen war a joxe këyit ngir rek moytu ñenn ñi di rax seen métier mi xale yi ndaw yi nga xam ne amuñu fukki at ak juróom band yi nga xam ne nii dañoo dugg ci biir sareet di ko takk guddi sareet fu fu jant soye war naa tekki ndax amul lamp joxoon nañu ay papier yoo xam ne nii dañ daan fay maire weeru dee lu ne 3000 dem naa maire ñaari yoon ñeneen yooyu si loola buñ ko éliminer te jox ñu leneen jox jox ñu leen suñ jox leen nag bu ñu éliminer itam dañuy yokk banditisme gi rek maam góor siis toog ci kaw bi bi ngi wax ni contrôle dogal bi nga xamante ni budakar la maire bu Dakar bëgg jël wante ma ngay woo rek mbokk dawalkatu saretam yi ñu seen doxalin. mais def ndogal ñun ah nangam mais def ñu ne moo ko tey ah xamal na moo ko tey waroon koo def ma loolu tamit normal sama génn bëriwul de a ngeen nii ma gis nii du ma dem les foire dem almadi du dem wax waxaam maire bu ndakaaru Barthélemy Diaz bëgg na dakkal dem ak dikk bi charrette yi ci biir capitale bi bu ñu tënkoo ci li tëral ay dawalkatu charrette yi ñu jot dajeel ñu ngay wax ni ànd nañ ci mesure bi wante bëgg nañu état bi jàppale leen ngir ñu mën a woy di def seen liggéey nu mu waree pour man RFM mooy rajo bi gën jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. ñu wax léegi li soxal wàllum politique ak kilifa yi politique ya nekk ca kawlak daal di addu ah, ci tàllal loxo bi njiitu réew mi tàllal loxo waa opposition bi ngir ñu toog waxtaan ah, di loo xam te ne gis-gis yi wuute na fa foofu lee ca Kaolack moo xam ñu bokk ci pouvoir bi ak ñu bokk ci opposition bi kon xalaat yi wuute leen amee ci woote googu dañ ci rëpp dëkk lu reportage yu fàtt Mbow. wooteem lii di dialogue bu njiitum réew bi Macky Sall daal di xaajale responsable politique yi faree fii ci Kaolack bu njuug Lindor Mbaye nekk njiitalu jigéen yi nekk ci monde rural bi daal di rafetloo mbir mu ne mel Pape Silma Khanat bu front contre le troisième mandat di banque ab yoxoom. c'est pas la première fois mu oote si dialogue mais fu muy mujjee ñëpp xam nañ ko mooy promouvoir la transhumance gis nañ ko ak ñoom Omar Sarr ak ñeneen ñu bëri ñi nga xam ne tey ñoom Idriss Seck ak ñu demoon. politique waxtaan sottantey xalaat donc su fekkee ne situation bi tendue bu mel nii am na ci Sénégal ku nekk opposition bi jaar fii kii jaar fii lu nekk ñuy waxante président bi nga xam ne mooy kilifa gi moom la fi yàlla taaj mu ne ñëw leen ñu waxtaan jaadu na. coordonnateur régional bu l'union sociale na te di xamle ne am na lu jiitu mbir mu ni mel ngir mën a amal lii di jàmm ci mim réew tax ba muy sàkku ci njiitum réew bi mu daal di teg lépp ci suuf ñeel wàllum candidature am ci élection présidentielle. atum 2024. pour que dialogue am président Macky Sall Karim Khalifa nañ jëm ci élection détenu politique quatre cent jeunes yi nga xam ne tey jàpp nañ la nañ leen libéré président Macky pour li nga xam ne mooy apaiser climat bi mooy moom na génn wax publiquement ne man du ma bokk taxaw seetlu bi am ci tension bi ñu wax nemmeeku ci languma politique bi fii ci Sénégal tax ba yile responsable fare ca Kaolack nat di sàkku ëllëg di jàmm naka noonu tamit waxtaan na fii ci Sénégal Fatou Mbow Kaolack rajo Futur Media. faatu Mbow euh, wax ci woote bi njiitu réew mi woote des ci ba léegi keneen ko ci àddu di Mame Mbaye Niang bokk ci APR moom ministre du tourisme xam na ne waxtaan woowu dina am même bu fekkee Ousmane Sonko bokk ci ci lu jëm sax ci Ousmane Sonko li mu wax démb ne résultat yi analyse yi ñu amal gannaaw liquide bi ko sotti woon def na woon dañ ko bëggoon a fàtt nee na yooyu yëpp ay yëfu caaxaan la Mame Mbaye Niang doonoon tey ganuk RFM matin Seydou Nourou Ba. njiitu réew mi ote na waxtaan digganteem ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci yeneen pàcc mi mu réew ngir déggoo am ci yenn yi Mame Mbaye bokk ci waa gëm na ko. parce que am na ci nag ay problèmes yoo xam ne jot nañ ko fi posé. Eh, ci élection présidentielle yi passé ah, ci walu parrainage ci wàllu nan la ñu joxe carte yi inscription yi lan la préfet yi war a gën mu baax ñi bokk. waaw bu dee nag waxtaan yu dafa nar am te Ousmane Sonko du ci bokk mam bañar ci tontu. mais mais moom moo ay nitam. mais ñun ak suñuy nit ñoo leen ëpp parce que moo tax ñu tuddee ñu majorité bi am de pourtant ñu ñoo woote donc mën nañ jàpp ni que ëpp ci Sénégal mais wax waxtaan dafa baax ci lépp di def parce que dina dalal xel yi dina leeral xel yi te dina tax tànneef bi tegu ci dëgg. lu jëm ci kàddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkate na ko ci ab déclaration ne résultat yu analyse gannaaw li mu tuddee agression bu ñu def ci moom ak ñi mu àndaloon fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars bi weesu résultat yi Ousmane Sonko ne dañoo wane ne dañ ko bëggoon a faagaagal Mame Mbaye Niang ne loolu moom waxu kasaw kasaw kese la. nan la kan mooy tànn kan mooy jël kan mooy def prélèvement yi kan mooy dem jël li ñuy analyser fañ koy analyser ak ki koy analyser dem sa kër nelaw ba biddanti yeewu dem après xëy ni jël naa lii muy defati nag kuy mbokkam na wax moom. nekkoon tey ganu RFM matin Mame Mbaye Niang bokk direction bu APR ne ñi nga xam ne dañoo jàpp dañ leen a nocc wala politique ne ci prison yi ne déedéet li leen fi yóbbu kay mooy dañoo sàmmawul ak yoon lu jëm ci procès bi nga xam ne mooy procès en appel diggante ma kii Ousmane Sonko Mame Mbaye Niang moom ne leer na ko ne moom moo ci am dëgg. Seydou Nourou Ba dañuy daaneel ak kii di Mankeur Ndiaye moom Mankeur Ndiaye ñu tabb ko léegi ministre conseil spécial du président de la République loolu nag gannaaw audience boo xam te ni seqoon na ko démb ak président Macky Sall Mankeur Ndiaye nekkoon fi ministre affaires étrangères ay at laata nag muy doon euh, représentant république centrafricaine nekkoon tam jamono njiitu ITIE euh, Sénégal maam Mankeur Ndiaye jamono yi la nag eh, ràññeeku woon lool ci ay euh, dingat ay euh, ŋàññ yu mu doon ŋàññ kii di président Macky Sall.

waxtaan ak ñi force de soutien rapide yi leeral yi ak ay avion militaire nag dal dañuy wutali ci banlieue nord bu Khartoum nag fi nga xamantene ñaari troupes généraux yi nag ñu ngi ci guerre nag ñom ñi nag jamono ji ñu ngi échanger ay tir de mitrailleuse ak armée lourde bu sukkandikoo ci ay témoins ci biir journal AFP donte na sax après trêve 72 heures dal dañ koy conclure ci euh, digganteeg États-Unis ak Arabie Saoudite niki talaata ji ñu wessu lu ëpp ci ay tentative ngir tek lepp ci souf dal nañ koy amal ci l'armée bi waye lu ñu mel antu depuis le conflit bi amé fokki fan ak juróom ci wéru avril bi ci diganté général Abdel Fattah al-Burhan ak paramilitaire bu force de soutien rapide bu général Mohamed Amda Daglo niki demb nat l'armée bi dal dinay xamlé né nanguna ngir yabal ap représentant Juba capitale bu Soudan du Sud ngir euh, ñu amal ay parler ak armée bu nat Abdel Fattah al-Burhan ci initiative bloc euh, régional bu Afrique de l'Est euh, général Burkhana dadne nangu ap waxtaan ngir ñu mëna prolonger yoy la trêve 72 heures bi nga xamantene ni ki minuit lay jeex waaye nat ñenn ñi sàllowuñu benn yoon yooyu la waxtaan na yi ci geneen wet gi nag ci initiative régionale niki nonu, buñ buñ ko ci du ministère soudanais bu walum santé nat, di xamle ne lu tollu ci 512 personnes dal dinañ leen di faat te 4193 ñoo ci am ay gañu gañu mu nekk ab bilan bo xamantene ëpp na le numéro jërëjëf euh, Fatou Mbow ñu wëtali xaj jogu euh, réew Mali fofé nak jamono yi social bi yëngu lool euh, coalition bi ëmb syndicat yi nek ci biir secteur affaires étrangères et des Maliens de l'extérieur tambali nañ benn grève bo xamné ne war na yàgg ñaar fukki fan ak di transporteurs yi ak chauffeurs yi itam fas banque seni loxo diirug ñetti fan liko dalé ñaari fan ci wëru mai gi ñu dëgmal li ñu bëgg dal moy ñu dal di leen yok payor ñu am ay conditions de travail yu gën ci biir yëngu-yëngu yi sax ñi di yi ak yeneen établissement financier yi daal dinañ ci dugg ñoom lu ñuy ñaawlu mooy ay di dogal yu tukkee ci wàllu euh, yoon gannaaw bi ñu euh, licencié waaye itam teg loxo ñenn ci say natango dañ d'eglou déglu euh, secrétaire général du syndicat sinabef Amadoune Ba ci micro suñu correspondant fële ca Bamako. Nos camarades sont licenciés illégalement. sunu camarades yi dañ leen dax ci lu tegul yoon ben weer a ngi nii ab erreur rek lañ def bo xamanteni amul sax ben jeexital ci entreprise bi ñu daal ci profitool dàq ay syndicalistes tay nak ñu dàqaat juroom ñetti syndicalistes ci mine bu ci Kenya ba situation intérimaire yi ba tay amul ben safara comité de suivi bi siégé wér bu nek ci direction nationale du travail waree na tëleem motax tax li ko jeudi 28 avril 2023 dàkkal nañu sunu participation ci boobu boobule su fekkee ne dara defuñu ko tey sunu ñetti naataangoo yoo xamante ne ba tey kenn mënu wax ni def nañu wala defuñu ñoom lañu tëj présumés coupables ou présumés innocents qui sont détenus. ana dañuy dem ba Tchad foofa référendum euh, bi amal jëm ci wàllum modi di constitution ba féwolé way politique yi. waaw féewale bu baax a baax sax te juróom-ñaari weer amal bobé euh, référendum li ñuy njëkk a politique bi moy euh, composition konarek gi muy commission bi ñu dénk walu organisation référendum nar ñu bari ñi tok ci biir commission boobule dañoo fare ak régime de transition bi nekk foofee jamono yi ca euh, ca Tchad kon leneen lu ñuy euh, ñaawlu mooy euh, proposition bu soxal benn projet de de constitution képp jëm ci wàllu nekk ab état unitaire te moo ne day lu ëpp ci wàllu doomu Tchad yi ab état fédéral lu ñu bëgg loole bu ñu sukkandikoo ci ab sondage boo xamante ne amal nañ ko ci weeru avril gi ñu nekk centre d'études pour le développement et la prévention prévention de l'extrémisme def numel ñu mel lu mu kon modi euh, lu tolloog 56 ci doomu Tchad yi ñom euh, lu leen gënal modi ap état fédéral. jërëjëf soxna na. bi de la banlieue ñu délocaliser ko yóbbu ko stade Abdoulaye Wade pari bi nga nag nag leen naan c'est un pari fou président la Diop bi ñu toogee dafa ne nañ ko jël ñu ko président moyen de mu ni ma non mënuñu lépp lu mu laaj ci moyen nañ ko def parce que

ba nga xamné tay ëlëk équipe bu fa bëgg football fubal sawar jox la ko loolu pour ñu réussir ko il faut que match ñu football ci jamm ci salam dans la sportivité donc Pikine ak Géejawaay dëkk yu mak lañ dëkk sportif lañ dëkk yu fair play lañ lool war nañ ko mëna a pour pour football fubalu Sénégal pour mëna a permettre yeneen équipe yi ku bëgg football fubal ci euh, Ablaye Wade saisit jox la disposition yi nag jël nañu commandé nañu 400 gendarmes 300 gémis ak cinquante sapeurs pompiers et bind nañ lettre euh, ministre ministre qui des sports pour mu jox ñu 150 cinquante parce que président Lat dafa né bu ñu lésiner ci moyens lepp lu mëna def bis bi réussite nañ ko ci def bu dañ mëna sax tay la titre foncier Guédiawaye tay la ko ci pour match bi réussir am fa mu doon succès bo xamné banlieue bi da koy am mu doon tarif lo xamné kenn du ko fàtte si histoire. Sénégal ñu wax ci leen. wàllum football ba légui la dess des. waaw mm-hmm. ah, wàllu football ak euh, ci lu jëm euh, li nga xamante modi euh ci Angleterre jàppale nag nag Sheffield United euh, bu Eliman Ndiaye mom nak dal dina yek ci première ligue bi manam première division niki dem nak lañu ñoo di am ndam bi nga xam te ñu yek sen ak di wa West Bromwich Albion 2 à 0 Eliman Ndiaye nak mom euh, ci loolu le nak amal na ci jéego yu am solo ñu ànd si gi suba ña Ndiaye woneti na bopam demb daal di joxe passe décisive ci but bu njëkk bu Sheffield United wi daan West Bromwich ñaari bal ci dara dadi di assuré yegum ci Premier League mu nekkoon juróom-ñeenteelu passe décisive bu star bu Sheffield United ba tax kon doomu Angleterre bi di rian mi mi jiitu ci classement bi ñaari passe le ëppale Momkon Ndiaye moom kon jamono yi joueur ex bi dàq passe ci championship bu Angleterre attaquant international sénégalais bi am ñaari fukket ak ñett mooy jamono ji fukkeelu joueur bi dàq dugal ci D2 bu Angleterre jiitu ci classement africain yi mu daal di dugal fukki Benubu, ak ñett di ratio benn but ci ñetti match yu nekk mu benn doomu d'Ivoire bi di Amad Diallo nekk Sunderland mu daal di rawee ñetti but Ismaïla Sarr mi dugal fukki but ak Watford. Ndiaye ren bokk na ci fukki match ak ñett yi nga xamante ni Sheffield United jogante na ko ci championship Seny rek moo ko ëppale ndax moom ren góolu na ñeent fukki match ak ñeent ak équipe di King Park Rangers. naataangoo bi kon ci sélection bu Sénégal mun na dab ndax Sheffield United amna match en retard ak Sheffield Iliman Ndiaye tamit ren dugal na benn but daal di joxe passe décisive ci Coupe d'Angleterre ñom sax dem nañu ba ag ci demi-finale Iliman Ndiaye ci téeméer tir yu mu def ren juroom benn fukki egg nañu fim ko bëggoon jëmle di 45 ci taaxle mu def passe yi gatti mu ci réussir du ëpp juroom ñetti témer passe mu ci def lu tollu ci fukk ak ñaar des jéego yu ba di ci équipe type championship ren ba sax ay club yu mag yu nekk ci Europe daal di ko bëgg a jël bokk na ci Milan AC waaye ci lu yàggul kii nga xamante ni kon Rouen Le judo wax na ni Olympique de Marseille moo yàgg nekk ci xolam bi mu nekkee ndaw ba léegi. jërëjëf Youssouf Bodian ci première ligue googu sax moom la ñuy daal di kon bokk euh, wax euh, ñu ngi seen 33e journée tey ji nag ci ngoon dana am ñaari jongante ci bu 18 45 jotee Everton bu Idrissa Gana Gueye dana ak ñi di Newcastle fàttali na Newcastle euh, moom nga fété si ñetteelu place bi té pexe moy fexé ba desandi fofu ngir mën bokk dewen ci ëlëk euh, manam ci équipe nga xam te ñoo kon bokk fas euh, té wal Angleterre ci wal Ligue des champions ak Unimel sans son Southampton moom itam waxtu gogo dana tass ak ñi di waa Bournemouth 19 heures 45 nak Manchester United fété si ñetteelu place bi tolloo ki ak Newcastle moom dana fekki Tottenham ci dëkkam Tottenham ci si e place bi fatel nak

sport 20h nag diggante de Dakar lay dal Dakar Université Club. CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Malaysia Yumo. ak savon de Marseille ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi li ci yéenekaay dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf boom di assassinat gi Ousmane Sonko doon wax ne dañu ko bëggoon boom keroog ba muy dem tribunal di wuy yoon diggam ak Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko dëggalaat na wax ji démb Vox Populi nañu ci page Facebook fa la bindee ne prélèvement yi ñu defoon ci yi mu soloon keroog yóbbuwoon ko bitim réew doon ca defi analyse ngir bëggoon a liquider yéenekaay bi nañu jëf jooje nag moom jiital parti Pastef force de défense et de sécurité yi la ko tuumal le témoigné bind ne Sonko mi ngi jéebaane boom guñ ko bëggoon a boom ci yoonu tribunal bi tribune nañu Sonko feeñal ak assassinat gu mu ne moom lañ doon jëm ci moom li xaw a jaaxal yéenekaay bi ci mbir yi nag moo di ba léegi Ousmane Sonko waxul ci ban laboratoire la ñuy defee yi askan wi ñoo ngi toog di xaar ak di ko déglu ngir mu siiwal résultat parti Pastef bi waxoon lu ni mel ba tax mu am lente ak yoon Le Quotidien mi ngi laaj moom it fan la ab dossier di mujj source waa xëy ñu ëndil ci xëtamu njëkk li Ousmane Sonko résultat yi ñu jot dëggal nañu ne alkaati yi dañ mu doon jéem a boom keroog ci yoonu ci war am danañ ko ci taxawee yéenekaay bi dolli ñu ci ne dolli na ci ne moom Ousmane Sonko ne ki fan dana defub conférence de presse ngir indi ci ay leeral yu gën a yaatu ñu yaatal géew bi yootu waxtaanal ci dialogue bu président Macky Sall woote Diop Decroix jàpp na ne toog waxtaan mooy li war ndax ni réew mi mel guddi yu ñu toll du njariñul kenn jigal réew mi baaxul ci jàmmi réew mi baaxul it ci dalug réew mi mu ne fulaaku fit du toog di xastante wala di waxante lu ñaaw waaye mooy toog waxtaan xoolante ci biiri bët seeni gët ci xët mu njëkk réew mi quotidien ñu xool yi fa njiit réew mi Macky Sall journal bi nee nañu moom président de la république mi ngi la nation woote waxtaan gi mu woote waxtaan journal bi mi ngi laaj ndax dana ci dab Abdoulaye Wade ko ne moom gi di Abdoulaye Wade a këri kilifteef gu nekk ci réew mi yéenekaay bi seetlu nañu ko lool ndax ci juróomi at yi mu am ba mu taxawee ak léegi ñeenti nit jot nañu koo jiite muy Aminata Tall di Aminata Touré di Idrissa Seck ba ci Abdoulaye Daouda Diallo mi ñu ko jox bu yàggul institution beneen bu nekk ci réew mi di assemblée nationale bés bi le jour nee nañu ma ngay defarwaat di jekkal tooga toogaayam convoqué nañu bureau assemblée nationale suba ci àjjuma ji yee ñu fa war a journal bi nañu ay question d'actualité la ay question orale mbirum commission d'enquête ba ci waxi haute cour de justice mi ngi ñuy xibaar mom journal bëss bi le journée Abdoulaye Diouf Sarr fay juggé ci assemblée nationale ndax dañu ko takal benen domba tank ci réew mi journal la mandat nañu mom Abdoulaye Diouf Sarr dembu lañu ko def directeur général bu FONSIS fonds souverain d'investissement stratégique l'observateur nañu waji di Arouna galoba moy mooy jëli place Abdoulaye Diouf Sarr ci assemblée ensemble ñu dajé ji ci direct news fa mu xey modi ci l'hôpital bu Saint-Louis ak ci l'hôpital bu Podor Sophie Gaye benn femme la bu ne woon ci réseaux sociaux yi di fa def ay consultation médicale di bindal nit ñi ay ordonnance journal bi nañu waa sûreté urbaine ñoo ko jàpp moom akub assistantam ci seen appartement ba ñu ne woon defoon fa seenub labo fa la leen fekk jàpp ci ab garde à vue fa la nangoo moom docteur Sophie Gaye ne amul benn diplôme ci wàllu médecine wala ci wàllu pharmacie doon na ko jàng nag waaye njàng ma yeggul ma yegge leen xibaar beneen bu nekk ci xët mu njëkkul observateur awo ba di femme bi riiroon ca kees te ay mbokkam doon ko wër mujj gi ñu fekkoon ñu faat ko ba taal ab néew l'observateur ne nañu police bu teewoon jàpp na ki ñu jàpp ne moo def ñaawteef yi mooy waa ji njëkk a gis néewub awo ba dañoo gis ci moom ay affaire yu wane ne seetul ci affaire bi CCPS comptoir commercial de plomberie du Sénégal Malaysia Yumo ak savon de Marseille Alfi ñoo leen doon may ci yéenekaay yi. yi gis-gis. mbokk yi ñu yegg seeg léegi ci gis-gis nag tey ñuy waxtaan wàllum changement climatique di coppite ci jaww ji ak euh, njeexital yi mu am ci sunum réew di Sénégal loolu nag gannaaw bi nga xamante ne waa météo xam ne tàngooru métti kon euh, mi ngi ci réew mi ngir waxtaan li ma nag daan ci ànd ak Abdoulaye Diakhaté euh, moom muy ingénieur prévisionniste ci ANACIM agence nationale de l' aviation civile et de la météorologie Cheikh Diakhaté ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di nuyu di leen fay. jërëjëf daañu naan tam ci waxtaan wi ak docteur Aliou Gory Diouf l' expert consultant en changement climatique docteur ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay El Hadj Ndiogou di nuyu Abdoulaye. jërëjëf da nga may may ma tàmbaleeg Abdoulaye Diakhaté monsieur Diakhaté comme ni ngeen ko waxee eh, fësal ko ah, tàngooru metti dina am ah, ci réew mi lu ko dalee le vingt ba le deux ah, nee neen sax bët gànnaar réew mi ak penku bi foofu la mbir yi di gën a tare ndax dina dem ba quarante degré te mbir yi mën a am sax njeexital ci wàllu wér giram mën nañu xam lan moo sabab loolu njëkk. waaw may ma bala maa commencé di nuyu auditeurs RFM yëpp ak auditrices yi di nuyu aussi docteur Diouf.

te dina am ay njeexital carrément si dund nit ñi looloo waral ñu jéem a changer cap au lieu que ñu euh, di ñu nekk di wax naan euh, est-ce que dina taw wala du taw est-ce que dina tàngoor du tàng mais dem ba si njeexital bi nga xamante ni tàngoor bi dina ko def si dundu doomu aadama wala taw bi wala paramètre bu mu mënti doon dina ko def si dundu doomu aadama doomu aadama looloo waral ñu collaborer ak euh, service bu mel ni santé ak service bu mel ni CSE. donc ñuy vraiment saluer suñu collaboration bi nga xamante ni moo ñu boole pour xaatim ay bulletins yoo xamante ni bulletin impact euh, sanitaire de vague de chaleur lañ koy tuddee. Mhm. léegi période bi nga xamante ni bu bu bu bu mars jotee. mars mhm. avril mai dañuy lancer benn campagne bu ñuy wax campagne vague de chaleur donc ñun si suñu côté dañuy xool lépp loo xamante ni moom mooy vague de chaleur boo xamante ni mën na laal réew mi donc dañ koy génnee. te chaque euh, talaata bu nekk ci ay ay bés. vague de chaleur boobu laa doon wax lan moo ko waral euh, lan mooy cause yi ba nga xamante ne ñëw na ba laal sunum réew. d'accord dinaa ci ñëw léegi chaque euh, talaata bu bu bu nekk da ngay gis ni dina ñëw publier bulletin bu mel noonu pour léegi vague de chaleur buñ koy wax moo nekk benn. période boo xamante ni dañuy nemmeeku benn tàngoor boo xamante ni vraiment jàpp nañ ni tàngoor bu jéggi dayoo la hmm. tàngoor boobu mën na ànd ak ndox comme mën na bañ a ànd ak ndox donc mën na permettre nit ki di di di ñàq lu bëri wala mu nekk tàngoor bu wow donc boo xamante ni dañ koy gis ni dina am si ñetti fan yoo xamante ni day tegaloo tàngoor mu nekk température bu am doole boo xamante ni dañ koy nemmeeku si ay gox ci ñetti fan yi tegaloo léegi loolu buñ ko saytoo ba gis ko ñun dañuy defar benn carte boo xamante ni moom la ñuy tuddee carte de vigilance léegi loolu noonu bu ñu ko defaree dañuy koy jox secteur yi mel ni ay santé at CSE ñoom ñu indi si seen i seeni i seen i seen seen i seen input maanaam wax si li nga xamante ni tey jii nii bu fekkee am na tàngoor bu jéggi dayoo bu ñu nemmeeku si bët gànnaaru réew mi mhm. ñoom ñu xool foofu noonu si bët gànnaaru réew mi est-ce que am nañ plateau médical bu am doole est ndox am na fa est yoon yi baax na mhm. loolu yëpp dañ koy intégrer si biir pour mën a génnee benn carte boo xam ni moom la ñuy wax carte d'impact pour mën a wax population bi ñu nekkee côté bi nañ def attention parce que euh, tàngoor bi nii carrément mën na leen laal te mën na indi ay problème ci seen ah, mais tàngoor bi li ñu nemmeeku moo ne bëccëg gi lay tàng lool waaye bu ñu demee ba ci euh, suba gi moom euh, fajar gi dafay liw naka noonu tam guddi gi tamit dañuy gis ne tàngoor bi dafay wàññeeku loolu tamit est-ce que nekkul benn contradiction bu ci am sedd fajar gi après bëccëg bi mu tàng jër waaw loolu loolu yëpp day gën a day gën a wane carrément li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy tàngoor parce que tey jii nii bu booy booy natt tàngoor dëggantaan. Hmm. da nga koy natt ci li nga xamante ni mooy ni mu seddee eh, guddi gi ak nu mu tàngee bëccëg gi donc écart boobu noonu muy kër créé nekk na loo xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy gën a sonal nit ñi. Hmm. donc plus écart boobu di gën a am doole nga gis ni carrément muy muy muy gën a muy gën a muy gën a poser problème nit hmm. léegi nag tàngoor boobu noonu nag. li nga koy nemmeeku li ci gën a bëri ci côté penku bi ak euh, bët gànnaar. Mhm. foofu lay gën a amee doole waaye yow euh, seddaay bi nga xamante ne dañ koy nemmeeku ci guddi gi li ñu koy gën a euh, gis ci axe Dakar ak Saint-Louis foofu lay gën a gën a gën a gën a marqué. Mhm. te foofu noonu dara waralu ko lu dul ngelaw yi nga xamante ni dafay jóge ci dëkk yu sedd yi. di ñëw nga xamante ni dañuy traversé mm. côté océan Atlantique bi yëpp mm. ñëw daal di remonté ci côté boobu noonu mooy waral guddi gi mm. jàpp euh, ngoon gi jàpp guddi gi ngay gis benn féexaay boo xamante ni dafa marqué ci côté boobu noonu -hmm. waaye nag boo duggee ci biir dëkk bi di nga xam ni carrément tàngoor bi nga xamante ni moom lañ daal nemmeeku lu ci mel ni mars avril mai dem ba ba muy taw mi ngi fa te di fa continuer vraiment di fa nekk -hmm. monsieur Diakhaté ngeen ñëwaat ak yow wéyal waxtaan mi la tal ñuy ànd ak docteur Aliou Gori Diouf expert consultant changement climatique euh, docteur docteur euh, ban explication scientifique lañ mëna joxé euh, ci vague de chaleur bo nga xam te ne euh, nemmeeku nañ ko météo wax ko ñu némé ko fan yi fii ci réew mi. waaw jërëjëf élage Hadj explication biñ ci mëna joxé joxe ko ci science mooy benn mën nañ ko lëkkale ak li ñuy wax changement climatique maanaam. li nga xamante ni moo jëm ci wàllu tàngaay ak jaww ak li nga xam mooy wàllu taw yi dafa soppeeku bi ñu bu ñu ko seetloo ci diiru fukki at ak lu ko weesu dañu seetlu ne bu dee tàngaay bi la dafa yokk carrément bu dee taw yi la it dafa am ay coppeeku yu am solo yu ñu ci seetlu loolu tamit mun na am jeexit ci li nga xamante ni mooy tàngaay bi ñuy yëg ndax wax dëgg yàlla eh, dañu seetlu ne depuis ay at ëpp na téeméeri at li doomi aadama yi liggéey yi nga xamante ni mooy activité doomu aadama yi di def mooy xam ci wàllu mbay la ci wàllu euh, li nga xam moom mooy pétrole bi ñuy génnee ci suuf ak li nga xam mooy wàllu transport. Hmm. dafa am benn saxaar bu ñuy sànni si jaww ji saxaar boobu dafa bokk si li nga xamante ni comme booy togg nga teg sa cin boo ko kubéer gi nga teg ci kaw ni muy bloqué noonu euh, tàngaay bi ba du génn ndax ndox bu ko defee ndox mi gaaw a baax euh, saxaar bi ñuy sànni si jaww ji. loolu lay def moom itamit ndax suuf si day noyyi bu bëccëgee day emmagasiner tàngaay bu guddee mu bàyyi tàngaay bi mu génn tàngaay boobu nag saxaar suuf si dafa bokk si li koy bloqué. Mhm. maanaam mooy indi réchauffement climatique. mooy indi réchauffement climatique réchauffement climatique boobu nag dafa dafa dafay indi yeneen jeexit ci wàllu taw yi ci wàllu tàngaay bi su ko defee e, li nga xamante ni mooy vague de chaleur yi ñi nga xam ñu ngi koy yëg mu bokk ci te léegi comme ni ko Abdoulaye doon waxee yeneen ko doon laaj sax. ci boo xoolee côté maatam ak côté Podor ak yooyu fa lañ ko gën a seetloo. Mhm. te li li dañu comme li nga doon wax léegi ne dafa dañu seetlu ne suba si day sedd ngoon bi mu tàng loolu li ko waral mooy gox yooyu muy loolu di am dañoo sori géej waaye gox yi jege géej ñaareel. Mhm. température bi ngay yëg ci suuba si ak bi ngay yëg ci bëccëg bi dana wute mhm. waaye wute bi du am doole comme ni mu amee doole bu fekkee da dem ci biir réewum ci biir réew mi nga xamante ni foofu amul amul géej. maanaam euh, ku nekk ndakaar ak ku nekk Matam euh, jamono ji moom wute na lool wala Tamba tàngaay bi foofu tàngaay méttee métti fii sax mu xaw a tane tuuti Ndakaaru ak ay Thiès. waaw loolu géej gee ko waral géej gi bokk na si li ko gën a waral. Mhm. nañu ñëwaat ak yow kon euh, docteur Aliou Gory Diouf euh, monsieur Diakhaté euh, tey jii wàllum changement climatique di coppite ci jaww ji ban impact ban njeexital la am ci réew mu mel ni Sénégal. waaw comme docteur Diouf ni mu ko waxee boo xoolee changement climatique nekk na loo xamante ni eh, dafa laal réew yu bëri gën a laal aussi tamit suñu suñu réew yi parce que dafa nekk ay njeexital yoo xamante ni bu fa fekkoon benn tàngoor da koy yokk. bu fekkee taw boo xamante ni ni muy tawee eh, daanul foor trop da kay gën a yokk mu gën a am doole waaye aussi mën na tax aussi kër ni taw bi ni mu ni mu ni mu waroon répartir par exemple di taw ay intervalle de temps régul euh, régulier yoo xamante ni dina permettre suuf si mën a naan ndox mi dootul am dangay ngay jékki gis ko mu def benn Euh, taw bu am doole waaye mën na toogaat lu yàgg ba nit ñi fàtte sax mu jékki-jékki taw maanaam ay xeetu mhm. euh, yàqu yàqu yoo xamante ni lay créer yu gars yi yu yuñ daanul gis soit mu nekk taw boo xamante ni li muy yàq moo ëpp li muy defar wala mu nekk bekkoor boo xamante ni bu ñëwee dina dina dina dina yàq léegi comment faire face nañ yan pexe la ñu war a tëral euh, ngeen mën a jànkonte changement yi ak impact yi muy am nan lañ ko mën a dëkkoo waaw boo xoolee ci côté changement climatique de borom xam-xam yi xeltukat yi dañoo wax ni am na ñaari concept yoo xamante ni moom la nit ñi di faral di gën a wax muy li ñuy wax adaptation. Hmm. mooy gannaaw nemmeeku nañ ni vraiment changement climatique lu am la nañu xool nan la ñuy dundeek moom dundeek moom aussi bokk na ci jëm ko accepter nekk ak moom waaye waaye ah, waaye euh, accepter ko nekk ak moom mooy euh, mooy adapté wu donc jéem a xool ñun suñu dundin nan lañ koy booleeg changement climatique ba du ba ñu yàqal lu bari waaye aussi am na lu ñuy wax euh, atténuation mooy jéem a xool lépp loo xamante ni day yokk gaz yooyu ñuy wax ay gaz à effet de serre ñu jéem a xool nan la ñuy def ah teg ay xarala jéem a xool nan la ñuy def aussi ba ba ba wàññi eh, émission gaz yooyu noonu. waaye aussi bëggoon naa aussi dellu si si si si si côté météo carrément. ba mm-hmm. xamante ni tey jii nii ANACIM yàlla def na ni am nañu ay ay ay jumtukaay. yu xarala yoo xamante ni dinañu permettre tey jii nii vraiment ñu mën a joxe ay information météo ak ay détails yoo xamante ni euh, gën na précis. gën na euh, super calculateur bi ngeen am. voilà super calculateur bi ak yeneen euh, xeetu équipement de yi ñuy liggéeyee. Mhm. waaye aussi di wax ni aussi am na personnel boo xamante ni vraiment personnel de qualité la. Mhm. pour mën a jox ñi nga xamante ni ñooy utilisateurs yi li nga xamante ni loolu lañ soxla. comme comme information. monsieur Diakhaté bu jeexee rek ñu ngi avril d'habitude avril euh, nekk na bu am solo euh, période euh, si ngeen xool mbir yeeg yooyu lu jëm ci wàllu nawet bi nawetu ren bi en attendant prévision Agrimet ak yooyu nawetu ren bi naka la nar a tëddee taw dina bëri wala taw du bëri. waaw loolu nag si côté nawet bi donc am na gëstukat yi nga xam te dañuy gëstu si si si presque si sous région bi yëpp. Mhm. daje nañ ba gëstu am na lu ñu tënk waaye aussi ku nekk boo ñëwee sa biir dëkk. da ngay xoolaat information bi daal di ko globalement lu ñu tënk pour sous région bi globalement lu ñu tënk pour sous région bi yëpp. nawet bi dina baax dina bëri taw am déet voilà léegi nag loolu noonu hmm. ñu ngi nekk di si liggéey fii si ANACIM te yaakaar naa fii ak ay bés yu néew hmm. bu soobee yàlla dina ñu woo presse dina ñu woo ñëpp publier wax carrément nawet bi nan lañ jàpp ni noonu lay incha allah jërëjëf Abdoulaye Diakhaté ñi koy sant di koy gërëm di ingénieur euh, prévisionniste si ANACIM jeexal ak docteur Aliou Gory fa euh, ci wàllum changement climatique ñu ngi doon wax nañ lañ koy euh, dëkkoo wàllum tamit wàllum nawet yi loolu nekk nekk na loo xam te ne am njeexit tal naka la ñu mën a mu indi ay njeexital mbëndi yeeg yeneen yoo xam te ne seen réew ñu ngi koy jànkonteel su taw yi fooree rek ndakaaru gi nañ ni muy mel ak yeneen gox yi ci réew mi loolu na lan ci lu ciy pexe. waaw li ci pexe day élage eh, benn bi mooy wax dëgg yàlla eh, mooy wàllu financement eh, moom mooy li nga xamante ni moom lañ gën a soxla fi toll nii suñu réew yi. comme ni nga ko waxee bu tawee Dakar ni muy def inondation yi mais tamit yenn saa yi boo demee ci àll bi nga xamante ni mbay la ñuy def yenn saa yi taw ju demee noonu mu am ay bekkoor yooyu yëpp dafa nekk lu nga xamante ni pour xeex ak moom dafa laj financement financement boobu nag dañ ko dañ ñu ngi ko gën a xaaree ci réew yi nga xam ñoom ñoo sooke mbir bi parce que ñoom réewu tubaab ñoo ko créé hmm. waaye bu ñu xoolee ba xool wax dëgg li ñu waxoon ne sax téeméeri milliards dinañ ko bëgg di def donte li li àdduna bi soxla mot na ñetti téeméeri milliards waaye téeméeri milliards la ñu waxoon ci accord de Paris ne dinañ ko def boo xoolee boo xool fanweeri milliards bu baree ba bëri loolu la ñuy def ci biir fanweeri milliards yi juróom-benn milliards rek moom la ci Afrique di jot. tuuti na lool sax wax dëgg yàlla. tuuti na lool na lool. Hmm. te Afrique nag moom sookewu ko waaye moom hmm. moo ci gën a sonn moom la mbir yi di gën a sonnal léegi nag leneen li mooy gouvernement Afrique yi. waruñu xaar tamit rek li nga xamante ni moo war a jógee ko comme financement si dëkku tubaab bi war nañu xool ñoom naka lañ mën a def ci seen biir réew ni ñu mën a amee ay yeneen euh, niche de financement ñu jëm ko trouver pour jàppale askan bi mu mu mu mën a jàng mu mën a xeex ak li nga xamante ni mooy impact changement climatique bi leen sonal. Mmh. jërëjëf euh, docteur Aliou Gory Diouf euh, ñi lay sant di lay gërëm bu baax nu fàttali ne yow expert consultant en changement climatique dellu tam di gërëmaat Abdoulaye Diakhaté di ingénieur prévisionniste ci ANACIM mbokk yi mu nekkoon gis-gis ne woon tam xibaar yi El Hadj Ndiogou Diène ne woon ci xibaar yi ci micro bi ànd ak Aliou Ba ci machine bi.